alon fo lamin kamara wolon ne eh. <laughs> combo north west coast region tolba pareri in mm. definitely nobody in west coast region be member laring aba sinola bebala dokola pour on friday mba fintele ñame because we want to surprise the nation mm. Mm. not only gambia but the whole, world, world. inshallah yalla ñu ko yalla may fekke honorable babu mm. Ah, dégg nga compétition moo fi nekk. xam naa ne nag moom ni bugg a yàppa bari na maa si caam geeg yooyu noonu <laughs> ñoom ñoo ñuy rey nag yu bari yooyu noonu lan nga am pour ah, wax ah, faara faara yi si biti ak. ak suma mbokki joolaay. foog naa dañ gën a éluwee. <laughs> moom mooy ndawal gi. <laughs> Hmm. ma tënk ko si soose. waaw commune bi amulal yaa fo ñaamin. Mr Cham lem toñaati. ñin banko kam bi kabin banjun fo koyna katon fo amdalayi momantara laariñ kabo secretary general la kabda fango tata aje kon temu fondin kelti president jamen tombon kanke secretary general a ministre of presidential affairs mm. atene tambita kuwo be ñaatu every day day in day out aning youthful be consultation na albe nyadile munebe caring pare be nyadile woya ikende ko dai great concern mm -hmm. dunga tela concern mu mutin jikita benga ko len president wala concern ti mm -hmm. anda dung yina tan nim mo fana bole mum fana yan ko super general le ko general baji mm-hmm. sule general suleiman baji wala moti mu yan ko nim bakso be ndo ko wala ye mum fa bakso la ko to futu sido be lamin nyawnya nte fongu ni mbakso e bila ya maballe tama nyin ko kono abe one place to another nte lak fonga drive kono mm-hmm. abe kada ko mun ke ka wala nyidi kaje ko min lungo sita dunya mole kuje kabin dunya lota ne manke dunya nam pare ta wala mm-hmm. mbala fla president ya lon ko gambia fondinkel bi ni ko saya fele nan kadi alqur'anu ya yele gambia ninkel ko tol na sayata tene gambia e kontine ala ken dola wa ben kono fo ninkel bela ko mon le foten woto mul sanon ko nin jumo mun kana kuɓe kela kanilla dunya duniyawol tan manke fondinke ɓe musuke dindin keba abe aɓe payetale do sango se ka kenya ɓe seela kan e tol ka wuri jane sibiti lungo somanda juno yenananga ɓen do kudlatu ninga dogo ke ni fano ke ta bari mawɗo susole be basse betembo mundu anala fonnin i base tunno be ibakan ni nata siyara ndogal sisele bije ani mambure mhm. wal fana siyara club be ibabe kan ni nata elarar sidi che sidi che sidi sane le boto mhm. sidi sane fana fonnin kel be dawoda kab kabondi jata kundala kana fo digante yalon ki insa fo digante elarar ni kasamas na le rawol ah. kan nakinan foy e ni note bank na dina dami mo man tra sino kan mm. ni nata note bank dafa sedi le bije tafa sidi ɗum naala fondinkiloa te fana mu député gouvernol te ala ɗo ko mbegaje le hani ila ñinna eh, sdira programme oto ila pare ɓe ñamin kabdanga ya fo don ntol contente la west coast fana ɓoole ñama atol ɓe ɓoole kono billadi nu an odas an odas yalon tefanga probléme soto damin kabrin kon ka wuli mo tala mm-hmm. yalo ye ƴee fo jande ah. momo wuli mo dolle ba tala père no ñun ñoy indi 20000 ɗi mm. so that shows ko every region is willing to come up with so wo yai tandila ko pare mun be kenin banko kan bi fondinke la karola wallahi ni ko kirjang a mm. jumalungo gambia be kujela kabrin duniya lotane namaji because fondinkel be wakilitale mol mm. kam miro mun soto wala ñinti ko gambia be fondinkel be mira kiling walam president jame muntolla sanolti na lulu wolam du ñontangolam wota tena ko ni wo wulta mbay tan da dunya bel ko neni ta ñongo sotola babu dogo wala sa rafa melni comme bis biñ ko non welcome dum don joge ci tobe mm. duga banjo façon ngeen bu demee noonu ngeen pare bis boobu ah ndig bii ñu ni ko kii waxee e wax nga si loxo ah, waxi Lord Mayor KMC lu moo mm. def si ndaw yi kenn mm. réeréwu ko mbir mm. te ñu ngi wax gouverneurs yi ak mayors yi nañ gën ñu support ñun ñun suñ ko munalee suñ boppa mm-hmm. billaahi nañ dem ba xam ne duñ gëtan pression si dara kon fanna yi nga xam ne ñoo amee fanna yooyu noonu mm-hmm. parastatal si cen moto yi. Mhm. affaire yi mooy dem ak a ñëw bi. Mhm. ñun bëgguñ sax kenn ñooñu jumtuwaay rek lañ soxla. Mhm. te ba rek kuy ñëw ramatulaay. ku am jaasi. ngoosi ngoosi ak yooyu noonu ngoosi ngoosi nangu ko te bëgguñ kenn ñëw foofu as a gentleman ou gentlelady. waaw bëgguñ loolu. waaw waxoon nañ ko fi démb sax ne kuy ñëw ñëwaal ne da nga ñëw pour liggéey si. demuloo comme like a tourist. après ñu ngi laa woon ne in fact this time naa ko repeated. ñu ngi even avoid uh, uh, uh, social security. waaw kër gi foofu noonu because what we are what demee social security. Hmm. transport nit ñi to the farm is always difficult. waaye ren dinañ try. dem si biir dëkk bi man damaa lal matres toog national youth mobiliser dafa lal matres Bakso ak keneen ak ñëpp si hmm. suuf la ñoo fanaan. everybody. su boobaa ñëpp dinañ xam ne tuggee na ne su ñoo oyee si hmm. ndaw yi. loolu président moo ñu jëral lu raw loolu. Ah, kon loolu tax na ren amuñ benn boundary. alhamdulilah ku ne mun a ñëw. yaa xam noo mun di ñëwee. Mhm. ñu ngee ñaax ñëpp li amul partisan ah, ah, politique. Ah. président damay ne ndimbalam su ñëwee njëriñam su ñëwee. Mhm. amul xaaj ak seen. Mhm. kon góor jigéen mag ñu ngee oo ñëpp. kenn ku nekk sa taxawaay mm. soo ko def fukka yokk ko mu nekk téeméer pour ñëpp mën a ñëw atteindre. waaw ba honorable Sonko wax nga wax bi yëpp ah, kontaan nañ si sa kàddu yu rafet yooyu noonu yaakaar naa ne yuut si ñun laa déglu ñu ngi seetaan te ni ngeen ko buggee noonu la ko gars yi defee dafa mel ni waxtu bi jaamu nañu waaye xam naa ne ëllëg incha allah dinañ ñëwaat waxtaan continuer waxtaan bi fi nga ko tënk tey ah, mbokk yi lii la ñu waxtu mayoon ah, suma kilifa yi ma fi amoon mooy honorable Babou Gueye Sonko Euh, ajaratu bintu koli euh, alaaji Kamara alaaji Lamine Kamara ak ki nga xam ne mooy alaaji Ibrahima es Thiam bi nga xam ne moom moo tax ñuy rey nag yu bari yooyu noonu kanelaay euh, ba beneen bés bu aay incha allah rahmatulah jàllo la ñu fanaan jàmm. jàllo